léegi leer na li ñëpp doon xaar président Macky Sall mujj na ko fësal jëm ci ana kan la tabb ci élection locale yu ñu jëm ngir it mu jiite mbir yi ci coalition benn Bokk Yaakaar ka ko jiite woon ci élection législative atum 2017 jiitewaat ko ci élection présidentielle yu atum 2019 moom la président Macky Sall mujj def euh, coordonnateur national coalition benn Bokk Yaakaar ci jongante yu jëm di ki fi nekkoon jëwriñ juñ dénk wàllu koom di Amadou Ba lu ni mel nag loolu la ñu fësal ba ñu ci bëri euh, jotee ca moom mi nga xamante ni responsable APR la ca Parcelles Assainies wax nañu sax ni moom mujj nag xaatim chèque bi nga xamante ni moom la ñu génnee ngir mu doon caution wu majorité présidentielle bi ci local yi ñu jëm Amadou Ba kon jàppaleen ni fii ci Ndakaaru moo na ca bopp ba ca Golf Sud nag xam ngeen ni coow la woon. diggante ndax euh, kii di euh, ministre euh, Fatoumata Néné Tall lay doon wala ki nga xamante ne moom mooy maire sortante bi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar di parti socialiste wala Lat Diop président Macky Sall mujj naa ki nga xamante ni moom mooy Lat Diop ca Jim Momar Ba moom lañu ñu fa tànn ca Mbacké Gallo Ba la tànn Médina Euh, kii di Cheikh Ba xam ngeen ni Medina it enjeu la ñu ko doon bàyyee xel euh, ci wàll wi ndax bëri na fa ay ténor waaye euh, kii di Cheikh Ba mi nga xamante ne moo jiite caisse de dépôt et de consignation moom la ñu mujj tànn ca Mbour Cheikh Issa Sall moom la ñu fa tànn waaye pour département bi xam ngeen ko kii di Saliou Samb la Malicounda nag Maguette Sène la ñu fa tànn Maguette seen mi nga xamante ne xam ngeen ko moo jiite COUD. Diourbel ñu ko doon xaar doon ko bàyyee xel ngir tendance yi fa feeñ daam Diop di ministre bi denk dénk formation professionnelle moom la président Macky Sall mujj euh, tànn beneen gox it ñu koy bàyyi xel xam ngeen ko di Saint-Louis Saint-Louis Mary Teuw Niane di nga ko tudd di nga tudd yeneen ci ay challenger yoo xam te nit ñu ngi doon may gët mbir yi jàpp ni ñoo ko ñoo fa gën a yey kii di Mansour Faye waaye nañu xam ni président Macky Sall joxaan na confiance am ki nga xamante ni mooy am Mansour Faye ndax la ñu fa tabb Euh, ca Kaolack Mariama Sarr la ñu dëggalaat loolu nag dina indi coow ca Kaolack ndax ñu ngi koy bàyyee xel bëri na ñu gi yëkkati woon seen kàddu yàggul dara doon wax ni bëggatuñu Mariama saar dañu bëgg soppite euh, ci mbir yi waaye mu mel ni euh, ñoom nañuy gisee uute na ak li président Macky Sall di gis ndax moom kii di Mariama Sarr la dëggalaat ca Wakam Victor Sadio juuf ndax gis nañ ko jamono ji muy agité wu kon finalement la waral coow li yépp mooy ni Victor la ñu doon xaar wala boog moom la doon bàyyee xeel ci mbir yi kon nag moom la ñu dëggal moom Victor Sadio Diouf nekk ca COUD euh, euh, moom la ñu mujj jox confiance ci wàllu nu mel ci Dakar Plateau Aliou Ndeye di ministre moom la ñu tabb bokk ci parti socialiste ca Padoa band Diop euh, ca Linguère Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye xam ngeen ko. Euh, bokkoon ci gouvernement euh, bu bi ñu yeesal bu yàggul dara nekkoon fi ministre de l'intérieur kon moom la ñu dëggal foofee ca Linguère ca Yoff Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni xam ngeen ne buñ daan Dakar moom la ñuy tudd ak Amadou Ba waaye mu mel ni mbir yi soppeeku amu ca donte nag ñooñu Abdoulaye Diouf Sarr lañ doon wax mooy Abdoulaye Diouf Sarr Dakar a ko soxla ngeen gis slogan boobu ñu ko doon fësal fu ne waaye mujj nañoo tànn kii di Amadou Ba léegi nag laaj bi mooy. ndax lu ni mel Diouf Sarr dina ko nangu am déet ak i te gis nañu proximité yi mu doon def bu yàggul dara loolu yëpp dinañ ci am lu ñu leer ci fan yi ñuy jëm Omar Gueye nag moom la ñu tànn euh, fi nga xamante ni xam naa mooy ca ca ca ca ca fi nga xamante ni mooy ci Kër Massar ak la ko wër lii la ñu amagum xëy na dinañ amaat yeneen ci lu jëm ci euh, région ya ca des ak ya ca aju incha allah laataa nag ñeneen ñi ñu leen di xaar mu yeneen coalition yi wara a fësal nañu tànn. ci euh, li nga xamante ne moo jëm ci yile euh, jongante